ayca mi ngi noonu euh, son bu Diop euh, yow la ñu ci àndal en passant maa ngi ciy nuyu Mame Mor sama xarit boobu lee nga xamante ni ku ko invité mu indi ay tarangaam merci Mame Mor kontaan naa ci yow ayca loo indi tey. Euh, jërëjëf Mame Mor Mbaye ñoo ngi bu baax ñaanal ko yàlla bu baax ndax dem teranga ji bari na. wallaay wax dëgg yàlla ñun moom tabarkalla ñun ñun ñi ci suuf sax bokkaale nañ ci teranga ji. <laughs> aywa tey ajaratu xam nga sànq dama def sama introduction ku nekk téye sa làmmiñ waaw ku nekk téye sa gémmiñ sax laa bëgg a wax. Ah. li waral loolu damaa gis benn vidéo boo xam ni sama xarit ba Omaro. waaye waay waay ñu ngi ñaan warga ngir benn warga bu normal ñëw sponsorisé attaques yi kenn xamut lii ban warga la warga wu normal ñu ngi koy wax di woo yeneen yeneen kii am ñun man daal léegi warga bu normal yéeg leen di dañoo bëgg beneen warga yéen jaaykatu warga ñëw leen parce que warga xuj mbal bi am am teel teel ah. attaques yi kenn xamut lu mu nee na warga jee rafetul warga ji. loolu utal keneen ku ko naan. ayja mi ngi noonu ajaratu euh, sànq bi may def sama introduction maa ngi wax ni dama dama ni bëri rek ñu daal di kenn ku ne jàpp sa gémmiñ waaye noonu yi lañ ko gisee ci internet bi muy Omaro sama xarit boobu nga xam ne bi fi xewee nag man nag jéem essayé naa ko woo parce que la ma ci bëggoon a xam rek mooy lu waral tekk tekkaralam dafa am soxna suñu gis ci internet bi mu ni euh, day yokk ay bagaasu góor ma jàpp nag mboolem ku yëngu ci faj ak faj mu mën a doon di muy tradipraticien muy médecin yi bu ñu demee ba sutura génn ci li ñuy def rek daanaka jaratu ko ñu gis ni soxna sa da doon joxe ay tegtal ja wax ni li ma yor baax na di ko méngale ak omoro ñu génne benn foto omoro dinañ ko gis ci élément bi ñuy dugal wane ni daal omoro daal waxatul dara ndax la ca tubay ja bari na ba solatul mënatul sol kilot léegi daal ay xaftaan ak grand boobu lay sol ndax lam yor da koy lem rési ñu del siwaat da yëngalul jamono ji lu dul tubéy ji ci pomaat bi réew mi yëpp a nga may woowee fu ne fi ne omoro na ci lema sénégalais day lem sénégalais gis nañ ne fi affaire bi day lemu ndax dootoo ko xajatul ci tubay jaan ju yeewu la mais nag fi mu nekk nii sabadoor rek lay doy saa waa ji gis nga ko fi ne ñetti morso quatre morso ba ci fa mu dem gis nga ko ba mu feccee sol kilot bi solaat jiin tegaat t-shirt ca ginnaaw suba ga gis nga ko ca podium ba daa sol sabadoor bi rek di safum pël naan cëpp cëp cëpp cëpp ndax affaire bi noonu lay mujj sabadoor rek ñetti morso Euh, mi ngi noonu noonu yi ñu ko tegee noonu yi lañ ko monte ci internet bi lu dul ni daal xaar kanamu ki doon wax moom ñun ñoo ko nëbb parce que soxlawul ñi di ko wane waaye euh, lii laa gis ci internet bi ma jàpp ne nag euh, Fatimata Seye Ndir li ma commencé muy sutura gi ginnaaw ba mu ca génnee Omaro mi nga xam ni démb ak tay li xew ci internet bi wu ko ndax jàpp naa ne luy xew ci internet bi yëg na ko ndax moom gis naa ni kuy dund internet la ndax jàppoo ni ndax jàppoo ni lii nii mën naa am lu mu yàq wala lu mu taasal ci dundam parce que nag du lu ndaw magam jëmm moo xam ne yaa ngi ñaan ëllëg du dégg maam am ay sët ñu ni kat sa tubay jël la ca nekk dañ koo yokk ka ko yokk toog di ko wax ndax jàpp nga ni lii luy luy defar image am la bu fekkee lu am la. vie privée vie privée kan. lii bii moom la ko neexee bon si moom moom la daal. non non waxuma ci cadre yokk la fait maire bi def ko ba pare. tudd ko ñu jël ko taf ko ci internet bi. faute bi ci maire bi lañ koy delloo parce que moom aussi nit dafa am soxla parce que ku ne dangay am loo xam te ne da nga koo manqué wala nga bëgg fajal la leen nga ñëw yaakaar kenn. Mhm. nga dem daal di euh, sollicité kooku ay service am. donc service yooyu nga xam ne moom la sollicité ci maire bi dafa fekk ne da soxla moom nag su génnee daal di ko fësal vilipendé ko loolu ci ci moom la rek nit da am sutura c'est mhm. viom la daal aywa jaajëf ma jigéen noo jàngatee eh, vidéo Omaro bii nga gis ci réseaux sociaux yi nee nañ dootul sol lu dul xaftaan de jàpp ni peut-être daf ko njëkk a def mu neex parce que ba mu ko njëkkee def nag coow da koo toppoon ah mbir yi jur coow ñëpp di wax tubayu Omaro bi tubayu Omaro bi ñu xëyaat gis beneen tubay man j'ai l'impression ngeen baal ma si terme bi mais dafa mel ni comme si nit ku kuusu man moom laay gis parce que tamit yàlla suñu borom am na nu muy bindee doomu aadama te yenn yi soo suñu demee ba ràññee ko si yow suñu demee ba gis ko si yow rek dañu naan dañuy xam ne du lu naturel Fatima mi ngi wax léegi ne dañuy jël mbir mi delloo ko si euh, mère bi mais mère bi yabul yab Omaro ba xëy xëy rek jël ab photom ne ko daay ci ci ci ci ci ci internet bi kon donc moom peut-être moom moo ko nangu wala lu ñu waxtaane la wala ñoom ñaar lu ñu ànd di defandoo si yëpp boo xamante ne nii dinaa jékki-jékki rek jël sa photo ne damay jaay benn produit jël photo Omaro teg ko si si kanamu euh, réseaux sociaux yi nit ñi di ko gis kon du maire du maire bi Omaro mi moo ñàkk fayda waaw hmm. ah. noonu Omaro euh, dégg nga loolu ma jigéen wax en tout cas lu doy ma ah Omaro moom Cheikh Béthio xamoo ko dama ne woon xam naa dégg na lii euh, ma jigéen Omaro moom Cheikh Béthio Thioune ma ca 2STV de moom la ñuy wax li ci tuwaayam ji maire baa ko yokk ba léegi mënatu sol kilote waaw man xam nga maire bi ngay bañ tudd turam man xam naa ko sama xarit la sama ko ñu kër yaay la yow sa xarit la waaw ah, mais lii moo am na lii da koy def non wóoruma ah waaw kay non man xaw ma fa muy ah, liggéey dama doon laaj rek xaw ma ndax day defar yi wala defaru ko mais daal dama la bëgg a xamal ne soxna Aïda Saliou la man xam naa ko xam nga ko waaw te bii nekkul vidéo bu njëkk njëkkoon na génn hmm. mooy bii photo bii Omaro sol bi génnee waaw moom loolu njëkkoon na ko fi leeral peut bii mu sol xamu blouson la xam lu mu sol nii hmm. bii mooy bu mu jubi hmm. mais mais man daal li ma ci mën a wax mooy man gis naa benn vidéo soxna Aïda Saliou mu ne hmm. yokk laa man mënuma wàññi waaw ku ci jël nag lu ëppal loolu man mënuma ko mais daal xam naa ni ñaari pot xaw ma lan ak lan expliqué na daal mais man vraiment Omaro man dama dama ko xàmmeetul parce que bi sëñ Béthio di dund Omaro solo nii ah man boog daaw ma ko gis lu bari kon. te parce que fu ma gisoon Omaro ensemble costume lay sol bu bu correct wala mu sol laxaatam. Mhm. man loolu laa daan gis. Mhm. mais col ko gii depuis sëñ Béthio génn àddina man ci laa ci laa xàmmeetul Omaro vraiment bien que nag. du ma toog ak moom du ma dogg ak moom. ñu ma mais daal mais ma bala internet bi moom dama koy. léegi nga baal ma bala maa dem ci alaaji léegi wóoral sam paj bu dee am na bu dee am na wóoru ma ndax loolu am na. Hmm. wóoral li ngay def jar na nga jël kilifa. ni ko dàng ci internet bi tudd turam. ni tooyam ja la ca nekk da koy lem. parce que maa ko nangam nag bu dee xaritam la nag wala ñu seq ko aussi. mu may loolu nit aussi da ngay xool relation. lii communication la kuy jaay am na ci ñoo xam ne ñu jaayee baax na. soxna Aida Saliou man pour man sañul teg Omaro wala mu tudd Omaro ni maa ko jaay nangam ak nangam. te te déggoo déggoowu ceeg moom. wala mm-hmm. amul fu leer fu mu ko teg. évidemment leen waxante dëgg nag. Mm-hmm. ay ca alaaji noo jàngatee mbir yi. waaw <laughs> Omaro <laughs> bàyyi sa xalaat. <coughs> non nga xam ni moom la def nii. alaaji non non maire bi euh, nee na ci dugal. waa xam nga xam nga lii. technique la pour jaay. pour jaay euh, waaw dañuy business moo Omaro ak maire bi yëpp dañuy business. Ah, kon jàpp ne lii lii na ci tuba ji moomu ko. fi mu toll nii c'est defar nañ ay pots. mais lii na ci tuba ji moomu ko. lii du dara lii ab ngembara rek bu ñu takk. boo xoolee ni mu bindoo sax moo la bindu ngembara. ay saa <laughs> c'est que li am solo. Euh, mooy euh, Omaro ak maire bi dañuy business léegi nag business bi ñuy business mooy que ni jamono jiñ toll nii euh, dañu bëgg seen business dox. dox waaw. Ah. parce que lii ñu def nii tey le fait que Omaro def lii rek am na ñoo xam ni tey ña ngay xool te xooluñu. léegi danañ daw jënd xam nga tey ñu bari ñu ngi jënd parce que dañu def kii bi partagé ko def ci seen numéro téléphone ak yépp. Mm-hmm. léegi nit ñiy xool am na ñu bari ñoo xamante ne bi dañ naan wooy man am naa problème jasab gisoon nañ fi jasab documentaire bi ñu fi defoon fii jasab maire boobu li mu waxoon même style bi la defoon mu mhm. mm, yokk laa man munumaa wàññi même kii boobu rek la maire bi ñëwaat waxaat mhm. maanaam man yokk laa man munumaa wàññi donc nit ñi dañuy daw wutal si la Mhm. léegi nag daw si wutal bi parce que jamono jooju wal fajiri fii téléphone boo kii nga ci ngay xam ni dëkk bi lépp cekk ñëpp di woote ñu cekk lee parce que ñëpp téléphone yi allo way way gasat laa bëgg a dem kii laa bëgg a dem lii pour maire ba maire ba kenn mun laax nu mu toll léegi nag ci jamono jii ñu toll nii nit ñaa ngi def ay commande hmm? commande yu bari pour affaire bi. saa loo ci xam. waaw donc wóor na yàlla ñu ngi def ay commande nit ñaa ngi def ay commande pour affaire bi hmm. te nañ xoolaat tubéy yu amaro bi ngemb la waaw wa <laughs> Zak Zak Zak leen wan leen affaire carrément boo demee di nga di nga lii bu nekk euh, ngemb sa ngemb wul ngemb la def bi ñuy def lii liñ ci woon moo ngi nii muy lan defar nañ seeni i produit hmm. gaa yaa ngay jënd di nga gis ku jë xam nga ku li garaaw ci affaire yi hmm. boo demee boo demee jënd hmm. affaire yi doxut da ngay demaat naan ko non ma kii bi dafa la fan kay dem naan dama gën dama dem diw affaire bi guddut kiiwul <coughs> doo ko def ah, waaw léegi nag encaissé nga mënoo de noter léegi dañuy créer système boo xam ne dañuy encaissé waaw mais xam nga ni lii boo xoolee tubéy Omaro ji xam ni ngemb la def na bàyyi ngemb gi. non non non mais alaaji xaara alaaji xaara Omaro. Oh. Omaro jàpp ma ne war na mën a sacrifier boppam ci àddina bi. di def lii di ko teg ci ay ay jaay ko mais moom jàpp na ko xam nga c'est que àddina bi. nit ñi dañoo bari te wuute mu neex de coow li de toppoon na ko nit ñi hmm. dañoo bari te wuute. d'accord waaye ngemb gi mi ngi mel ni rek. Ah, jigéen ñi teg ay anse ak yooyu daal di monter ay kii. waaw loolu moom lu am la ñëpp xam nga monter anse monter ngemb. déedéet dafa ngembu. d'accord Omar boo tekki woon kii bi fekk fa ngemb. saa bàyyi tooñ. Hmm. la fa fekk. boo fa la fa nekk. lan ma fa nekk dama ko xam. ngemb fa nekk jëntiw ma ko. en tout cas en tout cas fi may fi fi may jeexalee soxna si laa koy dénk muy sa xarit bi. ah mère bi laa euh, da koy lem doublé ko lu mu lem. voilà euh, fi may jeexalee ajaratu ah, bët yi comme soxna sa xarit la li ma koy dénk mooy communication bi baaxul man de man soo ay man. su ma feebaroon feebar bi bi muy woote su ma fa naroon a dem du ma fa dem parce que ni mu koy waxee ko manoon hmm. jarta dem parce que sutura voilà sutura voilà nit dafa noonu nit dafa am sutura voilà waaw même ba nga indil ñu waaju ngeen maa ko voilà mi ngi noonu kon faj mi moo amul sutura wax dëgg yàlla même bu dee lu am la dafa amul sutura te itamit dafa mel day toroxal ki mu koy defal hmm. euh, ajaratu béti euh, ba ba kañ talaata insha allah bu ànd ak dogalu borom bi. waaw kañ. Mhm. ayca jaajëf euh, son yi bu Diop ñu ngi lay euh, jaajëfal euh, di ci nuyu faama Dieng Fama madame Dieng maa ngi lay nuyu bu baax ay ayca ñu dem régie